annonce yi nga xam ne def nañ ko bi ci gën a fës mooy giga meeting bi Ousmane Sonko euh, daal di annoncé euh, ngir rek daal di gën a dooleel démocratie ak ni ñu néewalee doole lenn ci partisan Pastef fii wala opposition bi de manière générale euh, li nga xam ne mooy. meeting bi li ko waral ak façon bi biñ koy defee loolu moo lay wax ne réew mi amatul jàmm amatul démocratie. amatul jàmm amatul démocratie loolu suñ ko waxee wax nekkul ay wax nii mais yaakaar naa ne yow journaliste nga c'est la première fois ci àdduna nga gis ku jàpp ab mitin euh, ci biir semaine bi ñuy defee mitin mënoo wax ne mitin bi yow fii lay amee yow journaliste en tant que journaliste nga xam ne yéen a ëpp information ci Sénégal Euh, yaakaar naa su ma la dalawaatoon question bi ne la Giga meeting bi nga xam ne waa Pastef ak waa Yewwi Askan Wi muy taxawu dakaar ak ñëpp ñu ngi koy ñu ngi koy ñoo ko woote ñoom ñëpp duñu euh, yow xamoo fan lay amee te jàpp naa ne lu ëpp ci militants yi tey euh, duñ la wax ne la lieu bii la. si demande bi dañ koy définir aussi. waa ci demande bi. Mhm. dañ ko définir mais xam nga suñ mosaan jàpp meeting même bu doon mois de décembre lañ ko jàpp sax dañ naan danañ def meeting Kër Massar dinañ def meeting Mbacké dinañ def meeting Thiès. Mhm. wax date bi lieu bi jëf lépp mu jeex bu leen neexee sax dem fay seen i publicité ci télé yi ñu commencé di leen di leen di leen di leen jàllaleel seen i mhm. mais soo gisee tey man Yewwi Askan Wi woote meeting euh, jàpp naa ne liñ jublu ci ñàkk wax sax lieu bi ñu koy defee mooy que àgg nañ ci ñàkk démocratie ak xat ci dëkk bi ba boo jekki-jekki woon ne man kat damay def benn meeting parcelle laa koy defee terrain akapes ñi ngi koy def mardi meeting boobu doo ko def waa APR dinañ jóg ànd ak administration Sénégal di la toñ toñal di la tuñ tuñal ba doo ko fi defee ci réew moo xam ne da nga ne fi nga juddoo fi nga yaroo fi ngay fayee impôt fi nga jànge maanaam police ak gendarmerie ak préfet yi am droit préserver la say say bëgg-bëgg ba loo bëgg def ci dëkk bi nga di ko def ni nga ko bëggee tey administration Sénégal ak politique ñu ni ñu ko jëlee léegi def ko lu banaal loo xam ne da ngay gis nii euh, préfet bu koy def gis nii ay commissaires yi gendarmerie di ko def gis nii ay ay ay ay ay ay magistrats di ko def nga xam ne même bu ñëwul ci terrain bi dangay ngay gis acte politique bi. Hmm. loolu lu ñaaw la loo xam ne gis nga dañu njëkk ne nit dof day def euh, concert ñu bàyyi bañ ne suba la. Hmm. ñu ne bàyyi nañ ko ñu ne dañoo jàpp. Euh, méga meeting maanaam Yewwi Askan Wi dañu war a def benn meeting place de l'Obélisque ñu dem ba ca suba sax ñu ne noo sànc berte bi moo tax mënoo leen ko def ñu jóge fa ñëw Kër Massar ne dañuy def méga meeting samedi waa APR ñëw ak préfet bi dajaloo daan na léegi samedi boobu APR moo fiy meeting pour bëgg ñee gert ñee comme APR mooy meeting samedi kon ñun ñooy meeting dimanche nga xam ne meetingu Kër Massar bi li tax mu am dafa rëcc. mais nekkul loo xamante ne euh, euh, maanaam. lu ñu naroon autorisé lu naroon autorisé parce que dañoo autorisé APR samedi. Hmm. pour bëgg waa Pastef bàyyi. waa Pastef ne comme APR am nañ samedi ñun ñooy def dimanche léegi nag mënoo jox waa APR samedi ne waa Pastef lu ngeen def meeting dimanche looloo tax dafa rëcc jàll muy benn. Hmm. ñu ne Sénégal am na démocratie ñu jóge fa dem Mbàkke organiser meeting su ngeen gisee sax man ma meree préfet bi man dama xam li mu def lépp mooy Diop Diop préfet Mbàkke dafa def dafa dafa annulé pere meeting bi jël këyit yi denc ko ne Thiel bàyyi ba ñu jël suñu xaalis jël sonorisation bi mu jógee Dakar ba ñëw Touba jël tant yi mu jógee Dakar ba ñëw ba tuubaa bam mu leer ko ne ñun fay nañ xaalis ba pare mu jékki-jékki rek jël kayit gi doo ko boo génnee maanaam yemul ci. comme ni ñu defoon nit dof lañ doon def mhm. yemuñ ci maanaam di la di la traité mais dañ lay tegal ay ay kii yoo xam ne sax meeting bi dañ koy dañ koy annulé non ay perte mhm. am courage sax organiser meeting parce que da nga naan mën naa ci def sama un million ba pare du ma meeting mhm. maanaam jëf moo nekk Sénégal tey yeewi askan wi bi ñu bëggee meeting dañ ne non bu ñu jëlee benn place duñ meeting nañ jël non seulement ñaari place yu bokk déposé ca préfet bee déposé ca préfet gis nga. te no seulement nanguwuñ ko mais démb gis nga Ousmane Sonko ba ne woon mitin xaar yàlla wala wala kar wala wala parcel maanaam ñaar yëpp benn du ci am léegi lii nag. maanaam mooy Sénégal mooy dafa dem ba nga xam ne li gën a éphémère ci démocratie nit li gën a éphémère pour nit ki moomal ko boppam mooy am nga droit manifester ne man neexuma am naa droit woote samay jànk am naa droit woote sama soirée am naa droit naa ko dëppale rek ak ni ko yoonu réew mi waxee léegi nag Sénégal même boo ko dëppalee ak réew mi. waa APR bañ nañ jàmm bañ jàmm goo xam ne ku fi annoncé meeting doo ko fi defe bii lay wane. Hmm. mooy Sénégal amatul jàmm. man bari ki démb rek maa ngi annoncé benn yo ngan bu ma war a dem euh, euh, kii nu mu tudd ci Nioro ak Cas ak Casamance bi ma ko annoncé nit ku nekk day yuuxu ne ma bul jëmati fenn di ko wax. waa Casamance même boo fi ñëw bul ko wax boo ko bu ko waxati loolu mooy Sénégal. ndax lan parce que amuñu jàmm. ñun ñi bëggul Macky Sall ñun waxuma bañ Macky Sall sax mais ñun ñi bëggul ni Macky Sall di politiquer ñu taxaw publiquement di ko dénoncer. ñun moom sawaral lañ nekk nii actuellement. dañ lay saaga ndey dañ lay kar ci mbedd yi di yàq sa oto dañ lay kar di la dóor am na ci ñun ñu ñuy kar ci mbedd yi di leen dóor ah soo toogee ci tele bi di wax police gendarmerie BSDA xaw ma fan ak fan ñëpp a ngi ne kaw di la xool pour bëgg nga tarxiis ci sa làmmiñ bañ jël la dóor ci kaso bi. soo gis nga boo taxawee ci jàll këriñ bi di jëndi sax defal ndànk parce que mën naa mujj kasu maanaam loolu moo am Sénégal man bu may tukki Europe léegi boo boo waxee jour tel laay dem gars yi dañuy tiit sa valise bi mën nañ ci def nangam mën nañ ci def nangam. Hmm. soo waxee ah man de Cheikh Bara Ndiaye damay dem Kaolack samedi bii di ñëw à midi ñëpp seen bët fii di fii lay dem parce que dañ naan maanaam jóg léegi jëm Kaolack wax ne maa ngi dem Kaolack sax léegi musiba la ci koo xam ne da ngaa contre léegi lii nag. Hmm. mooy dañuy nekk fi naan Ousmane Sonko amul jàmm ak diw lii mooy ñàkk jàmm lii mooy jàpp ay gor yoo gënul ndey gënoo leen bàyyi gënoo leen judd ëppoo leen droit ci réew mi dàqoo leen a jàng toñ toñal leen parce que yaa yor pouvoir ba indi leen ba fii mais est-ce que lii li ko indi ba indi leen ba fii mënuñoo mitin wax ko mënuñoo seete seeni xarit ñemewuñoo voyage di ko wax ñemewuñoo tukki yor valise ah suñuy wax ñi ngi dugal seen làmmiñ fii parce que bëgguñu wax njuumte dégg nga yii mooy xañ jàmm aw asgor mais woote yi meeting nag yooyu yëpp du problème ba Sénégal di Sénégal ba léegi nit ñi ngi meeting ñi ngi woote ay meeting mhm. mais ku bëgg a gis ko xañ ay jàmm ay ay gor jàppal waa APR d'accord loolu mooy meeting bii nag xañ jàmm nit Mame Mbaye Niang moo la gën a xam ne Ousmane Sonko diffamé wu ko yow mii toog man mii toog yaa ma gën a xam ne euh, euh, rapport cour de euh, nu mu tuddati rapport IGF dafa am mhm. loolu yow xam nga ko man xam naa ko ñëpp xam nañ ko seen journaliste yi ñëpp a ko xam ñëpp xam nañ na tamit dañoo dugg ci dossier bi pour rien que Ousmane ko ñàkkee fayda ñu aate ko <coughs> patam patamee ko génnee ko ci candidat yi pour élection yii di ñëw sénégalais yi bu ñu bëggee tànn Ousmane ko tamit du ñu am possibilité tànn ko ñoom ci loolu lañu nekk yow xam nga ko man xam naa ko ñëpp xam nañ ko amul ku ko xamul lenn moo am senegal mooy buur bu am doole di ko jaay aw askan wu ko ñàkk naafeq yi di ko ko rafetal d' accord bu ma la définir de Sénégal loolu la. mooy buur bu bari doole. Mhm. te yërëmul ñi mu ëpp doole ba noppi fexe ba am naa feq yu toog wet gi di ko rafetalal jaay doole kooku loolu mooy am Sénégal gii dégg nga. Mhm. loolu nag bu amee cim réew looloo tax Ousmane Sonko démb waaye yeewee askan wi woote meeting bi woote ko pour rassemblement am nit ñi gis ñu jël témoin union international ak ak ak ak ak national mhm. su su su suñ ci jógee. ñu defaat beneen meeting boo xamante ne kenn ku nekk da koy defee ji fa nga dëkk man su ko préfet mayee euh, jàpp naa ne sax xanaa moom moom politique àggul ci nag nit ki dëkk Mbàkke ne day meeting encore nga ne ko doo ko fi defee ki dëkk fut Fuuta kii dëkk parce que seen 46 départements yëpp ñu ngi koy woote. Mm-hmm. suñ ko mayee man euh, la 15 man damay dem Touba foofu ci Mbàkke ci ginnaaw sëñ Cheikh Thioro Mbàkke laa koy dem defe ji muy député bu yeewee askan Sénégal gépp tamit def ko. mais lii liñ cee gisaat benn affaire la mooy yeewee askan wi ñoom xam nañ ne ñoo moom Sénégal ñoom léegi. Hmm. oui parce que parti bu amul mbooloo parti boo xam ne ñemewoo say mobilisation ñemewoo woote meeting boo xam ne tey la samedi dimanche maanaam deux jours avant meeting bi waxagoon nit ñi fan nga koy defee. suñ ci eggee na la yow soo bàyyi woon ba de temps nga ne nga la mu fees dell. mais est ñoom xam nañ ne ñoom ñoo moom Sénégal. Hmm. fu ñu woote nit ñi danañ leen fekk. APR gi gis nga ñemewuñoo jàpp mitin pendant quinze jours gis nga conseil des ministres bi war a amee Jurbel ñu ngi ci mën naa am fii un mois lay jëm xam nañ ne Jurbel la ñu ngi tàmbalee def seeni i mobilisation tàmbalee def seen i réunion suñ ko deful mënuñoo dajale cent personnes. d'accord Yewwi Askan Wi nag tey la samedi. Mhm. dimanche lundi mardi la meeting bi yow xamagoo fan la man xamaguma fan la te suñ ca yeggee da nga gis mbooloo muy tuur. oui wax naa ko mooy moom réew mi. wax naa ko sànq mais est-ce que yéen na maanaa aussi nga euh, def lettre d'information euh, bëgg def benn rassemblement te définir justement fi nga xam ne foog nga koy defee. waaw non préfet bi. oui wax nañ ko fii lañ koy defee. Mhm. préfet bi xam na ko mais soo ko waxee ci kaw doo ko def. mais lu ko waral justement ko waral mooy dañoo amatul indépendance su wax fi ñu bëgg a def ak fi ñu bëgg a jëm. mais bu man maa ngi ne ñemewu maa jëm Kaolack di ko wax. bu préfet autorisé donc amul problème à ce que ñu mën ko tenir. xam déggoo li ma wax dama ne la. Mhm. suñu waxoon na ñun Sacré-Cœur la ñuy defee ci meeting bi. oui du am. danañ bàyyi ba bis ba ñu naan ñetti signature ñaari signature am na jàkka ju nodd ci koñ bi am na benn jaaykatu caaf boo xam ne mën ngeen ko xëpp suuf maanaam tegal ñu ay contexte léegi comme que loolu dafa xew. Mhm. léegi dañ koy naan Sacré-Cœur la daal ne terrain ACAPES la déposé woon ñaari kii xanaa ñaari préfet yëpp mënuñoo am même conteste ay e. d' accord alors euh, benn li li problématique justement ci euh, organisation manifestation bi mooy dañu ne rassemblement dañ koy def le 14 alors que xam nañu ne le 16 procès bi dox diggante Mame Mbaye Niang ak Ousmane Sonko procès en diffamation bi mu la war a am est ce que nekkul benn xeetu euh, maanaam volonté pour peut être entraver tenu procès boobu. loolu koy la yeewee askan wi ñoom dañoo def act boo xamante ne. Uh-huh. acte yeewee askan wi la. mooy le 14 ñu def rassemblement taxaw wax ak sénégalais yi le 15 kooku sénégalais yi ci seen bopp. Uh-huh. ñoo war a wane fan la leen Ousmane Sonko yegg. fan la leen Ousmane Sonko yegg lan la leen procès Ousmane Sonko jaral. Uh-huh. muy sunu yaay yi sunu baay yi sunu maam yi sunu rakk yi sunu moroom yi. Ah. ñëpp ñu wane ne ñu lii lañu procès Ousmane Sonko jaral. su fekkente ne d' accord nañ Macky Sall la jógee fa la ñëw lem ko yóbbu amul problème su fekkente ne dañu gëm ne defaru ëllëg ci réew mi Ousmane ko moo ko war a def li muy jaay lu mu mën a doon pare nañ pour jënd ko la 14 jàpp naa ne ba léegi fii ma toog mënuma leen tuumaal dama jàpp ne danañ ko valider kenn ku nekk sol sa yére yu baax. dem ci place bi ñuy bi ñuy woote. nga dem dundal ko ñu def ko ci quarant 46 département yëpp. suñ ko su ko préfet yi nangoo. jàmm moo ciy njëkk la 14 danañ ko def ba toog di ko nettali te kenn du ci soj la 15 su ko préfet yi nangoo te xoolal préfet bu nangu soj du fa am soj amul naan ay la ngeen a warmaalu dëkk sàngam ak amul leneen du ci am dem def ko ci jàmm ñibbi ci jàmm waaye préfet bu bëgg a taxaw nag ay doomi Sénégal nga ne leen lii leen yoon may droit may leen ko man maa leen ko xañ parce que damay politique te di ko nëbb su boobaa préfet yi man gëm naa ne mën nañ ci indi ak pëccëxoo te damaa gëm ni nag nañ ko teg ci jàmm ak salaam préfet yëpp nangu Sénégal gépp wane seen bopp su dee Ousmane Sonko nit yi liñ ko jaral ñu wan ko ko le 16 ku mën a dem tribunal nga dem taxaw parce que nag organiser ab procès politique boo xam ne li nga ci jublu mooy liquider ab politicien kooku moom képp koo xam ne am nga benn cofeel ci politicien boobu lu toll ne dee dee deedeewuwe mhm. war nga génn wane ko kon donc le CES tamit fu ab sénégalais nekk war ngaa manifester wane ne tijji ay ay procès ne da ngay enquête te fekk ne enquête wu mais jàpp liquide benn politicien moo la tax a jóg kooku bépp sénégalais même bu fekkoon da ngaa bañ Ousmane Sonko quatre-vingt-dix-huit pour cent cofeel bi nga am ci moom nekk deux pour cent ci sa biir xol sax war nga ko wane donc euh, manifestation bi si le 16 mars bi euh, c'est euh, bu ñu war a def la ci tribunal bi wala ci gox yi ci Sénégal yëpp. non la 14 mooy gox la 14 mooy dakaar la 15 mooy gox yi Sénégal yëpp. le 16 mooy tribunal. mobilisation ngir lan puisque procès rek la boo xam ne dañuy ñëw pour leeral dañ ko diffamer. Euh, xam nga soo ko nee na amul est-ce que. xam nga bàyyi justice arbitraire ku nekk mooy mobilisation ngir la dugal cinquième pelentam. Mhm. juróomeelu pelent. Mhm. ban moo ci yëngatu. pelante na sëñ Bassirou Guèye pelante na ñoom Kabi Sow pelante na état Sénégal pelante na El Hadj Diouf pelante waat na xamatuma waaye am na ñeneen ñum mu waat Adji Sarr defe naa mhm. cinq pelante ñu ngi ci taabalu procureur yoo xam ne Ousmane Sonko moo ko fa def yenn yi dafa concerné fukki nit ak ñeent yu dee yenn yi dafa concerné ay nit yuy liggéey ci état bi lu mel ne tey magistrat wala lu mel ne tey procureur mhm. yoo xam ne dafa signalé ne ñii de ay comploteur lañ nga xam ne bu ñu leen détecté woon tey mën naa am Ousmane Sonko mooy téeméeralu nit buñ buñ buñ comploté nga xam ne dañ la dénk tey par exemple procureur nga nekk procureur de la république au lieu nga liggéeyal république bi nga nekk fa def say complot mhm. mën naa am da ngaa bokkoon ak nit as ndaw nga mere ko tëj ko mën naa am nit dafa nekk ci benn son bu baax nga bëgg a jënd këram mu lànk nga yónni ay nit ñu tooñ ko nga comploté ko tëj ko xamuñu parce que procureur bu ñu demee ba tudd ko ci complot kooku dañ ko war a leeral mhm. loolu yëpp Ousmane ko def na ko fi benn plainte bu ci yëngatu amul nan nga mën a nangoo Mame Mbaye Niang di civil mu nekk affaire civile nga xam ne état amul lu mu ciy gagné état Sénégal bu Mame Mbaye Niang gagné Ousmane amul lu mu ciy gagné bu Sonko gagné amul lu mu ciy gagné bu fekkee état normal lañ wax état nangu au lieu ñu def diffamation ñu def ñu def ñu def ñu def euh, euh, euh, citation direct hmm. mais dañ ko woo jël li leen neex ñu chargé ko ci en tant que procureur bind pelante même pas un mois et demi indi nañ pelante bi ba jàpp date de àtte bi loolu teeyul sa xel ci ki nga xam ne yow yaa ngi koy yaa ngi koy indil pelante bi nii moom mi ngi juróomi pelante yu yëngatoogul parce que temps temps amul quoi. yoon ñi dañoo dañoo tuuti quoi ñoom bëriwuñ looloo tax mënoo fa dugal pelante rek taf taf mu gaaw Mame Mbaye ñaa ñëw fan ban buntu la jaar ba un mois et demi ñu jàppal ko datu datu datu datu àtte bi ñu ñëwee. atte boo fi dégg Sénégal lu ci ëpp danañ ko renvoyé au moins quatre fois première bi ñu njëkkee ñëw tribunal ñu ne dañ koy atte quatre ou trois fois atte yëpp renvoi ferme renvoi renvoi ferme yow mos nga kaa dégg sax benn projet man xam masuma ko dégg doo ko dégg renvoi ferme ah, bu bu bu Sonko Adji Sarr bi de dafa mel ni loolu la di amagul renvoi am na renvoi mais jàppaguñ sax datu datu atte Mhm. mais dañuy àtte lii parce que renvoi ferme la bu Mambay Niang bi plutôt bu Mambay Niang laa wax kese lan moo tax ñu Sénégal gépp ngi ci tooñ ñëpp amul mhm. renvoi amul renvoi ferme Sonko moom mooy am renvoi ferme mhm. dama lay génne li ci politique renvoi ferme moom da ngay nekk ci biir tribunal bi di avocat wala nga nekk ci biir tribunal bi comme Pam Ndiaye di nekk ci journaliste euh, euh, judiciaire doo ko mën a xam ay renvoi ferme mais renvoyé naa ko mais renvoi ferme la hmm. yaa ngi dégg ci ba nga nekkee Coulibaly ba tey nañu waxante dëgg lan moo tax yi am privilège boobu tam nekk affaire civile ñu ñëw pour euh, juge bi war a àtte àtte bi taxaw naa li xewoon fii du fi xewaat ak nangam nangam ay awak maanaam bi ñu ne dañuy premier premier dàq àtte bi bi muy renvoyé waa def na renvoi ferme force dama koy àtte. Hmm. ñu ñëw ay procureur ay ay ay avocat bëgg a dugg ci biir dossier bi nga ne non léegi ma am leen 15 minutes pour ma gaawantu. Hmm. lan nga lan la bu mambay ñaa amee amee dëgg lan la jariñ juge yaakaar nga ne yow su fekkul woon Sonko dafa nekk deux candidat 2024 di ñëw nii tey waaj a yegsi est-ce que patax patax jii ñuy def ci dossier bi dina Mame Mbaye Niang sax dina taxaw tribunal naan kaay àtte ma wala suñ ko renvoyé kenn du ci am benn problème dañ ko war a jugé. renvoyé nañ temps bi mi suñu kanam jeex na mais ñoom li ñuy def gis nga ko man gis naa koy ñëpp gis nañ ko léegi nag. juge bi saa buy àtte benn àtte day wax na ci nom un nom de peuple Sénégal. mais peuple Sénégal boobu nag le siège xajuñu tribunal xajuñu dakaar mais xaj nañ ci bëtu nit ñi. Uh-huh. xaj nañ Sénégal set xaj nañ Walfadjri xaj nañ feneen ak feneen ñëpp danañ yëg ne Sénégal ci boppam ñoo àndul ci yëfu tappale yii ñuy def di ci di ko jagleel mbirum justice. Uh-huh. waaw.